politique c'est pas une autorité judiciaire bu kenn gëmloo nit ñi monsieur le justice dafa am indépendance mënuñu koo def loolu man su ma nee ministre de la justice poursuivre Déthié amul sañ-sañ bañ woo procureur général kooku woo procureur pour ñu poursuivre Déthié loolu mooy dëgg bi ministre l'intérieur sama gouvernement la nekk man ñoom ñëpp maa leen consulter proposé ko président de république mu validé loolu mooy gouvernement du Sénégal. kon dégg leen ma bu baax li may wax liy wane ni réew mi am na soppi mooy man bi campagne commencé ba léegi woo ma ministre de l'intérieur en tant que premier ministre woo moo ministre la justice en tant premier ministre waaye en tant que woo naa leen. début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko jënd na ay gànnaay déglu leen ma rek déglu leen ma déglu leen ma non non leen ma leen ma li ma wax solo il faut ngeen di déglu yenn saa yi su ngeen animé rek day yàq li ngay wax ne leen dëkk rek suñu paree dañu animé début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ko ci information yu wér dégg Barthélémy Dias jënd na ay ngànnaay jënd na ay grenade jënd na ay fusil à pompe jënd na ay jaas yi te passionné lu dul di essayer attaquer ay convoi Pastef man nag c'est le candidat tête de liste Ousmane Sonko moo la woo jëlal say matuwaay pour loolu ñu régler ko rapidement agression bi njëkk am premier jour campagne ma woowaat ko en tant wax ko li ma koy wax moo ministre la justice en tant wax leen li ma leen di wax ñu toog seetaan mbir mi dem ñetti agression zéro arrestation loolu c'est la faillite de l'État et c'est le candidat qui parle dama bëgg ñu xam ne ñun dañuy gérer état ute naag ñeneen ñi en tant l'État a failli à garantir la sécurité de, du parti passif qui se trouve être le plus grand parti du Sénégal et qui peut régler lui-même du Yoff ba tey jii fële ci ndam parce que ñoom nee nañu romb nañu ab convoi mu ab ñu yóbbu Sonko Sonko Assane Diouf wàcc ne ku fi wax Sonko ñu def la nangam ñu génne seen i jaas yi yéen di ngeen gis image su ngeen demee ci réseaux sociaux yi loolu garaaw la ci réew mi woo nag ministre l'intérieur nee ko depuis 15 ans dans ce pays benn waaye fi nekk ñu tuddee ko Barthélémy Dias mu xamadee xamadi ba xamadi yem yaruñu ko waaye baayam bu dee baayam moo xamadi moom bu ñuy bañ xamadi parce que la ngeen ma déggoo baax parce que baayam yàgg ngeen di wax lu bon man ma noppi jaru ko waaye bu matoon limu mu doon ma mat ko doom du taxaw ci télé yi di wax lu bon ci man ak lu ñaaw waaye depuis 15 ans toutes les sources de violence benn waaye fi nekk di jaay ni moom EB Boy Dakar la di la tuuti ay nervi foog ni loolu mën na wéy moo wax ni bis ni ki tey loolu jeex na Sénégal ñu ne campagne bi man dama ne woon à de jeudi damay dem def di Médina Yoro Foulah def Vélingara terminé en beauté à Bignona waaye fii la ñuy ñoom dootuñu campagne ci réew mi. dootuñu sa gët sa jeexul ci réew mi de. nekk ci nguur te dañu doon ay faiblard mais dootuñu nangu benn militant Pastef benn militant Pastef ñu koy jàmpaaka wala ñu koy dóor lacrymogène wala ñu koy gaañ parce que dans ce pays là l'hypocrisie bi dafa quoi ah. bëgg justice des vainqueurs bu ñu vers une justice contre les vainqueurs te loolu moo nekk di am ci réew mi toog nañu ñu commencé convoquer suñuy militants naan dañoo taal seetu jàmbur amuñ ci benn preuve ñuy convoqué suñu militant te jamono jooju la mat la la veille agressé nañ suñu militant mais ba léegi arrêté guñu kenn loolu mooy ban gestion. j'ai interpellé le président de la république ci boppam bëgg a wane ni réew mi changé na et bien nous sommes au-dessus de la on ne comme les autres ba ñuy jam suñuy nit chaque jour loolu duma ko nangul président de la république sax li des ci campagne bi xam leen bu baax parce que ñoom li ñuy bëgg a bëgg a def mooy gëm nañ ni ñoom ñàkk nañu ba noppi xam nañ ko léegi dañ jàpp ni suñ ñu poussé ba ñun ñu réagir sénégalais yi dañ naan ñoom ñoo def violence bi wan ñu gannaaw waaye sénégalais mën nañu ràññee de ñun def nañu dix ans d'opposition bañee ne ci opposition dañ ne ñun du ñu mus a attaqué kenn waaye droit de la droit à la résistance la ñu mus a wax du ñu attaqué kenn waaye dañu toog di seetaan kuy dal suñu kaw ñeen ñëpp nag maa ngi leen di jox rendez-vous demee à Dakar. ko duma sur le terrain dimanche ñu duma leen ci heure bi mais lii dootul am Sénégal daf ak ay moroomu baayam naan sama maam sama di jaay réewam bi waaye dafa taseeg waa génération ñu ëpp ko nit ëpp ko doole ëpp ko fit jaar jaaru fa kon nag bu yamee waxamaana loolu jeex na fi le ministre de l'intérieur dans les 24 heures s'ils n'arrêtent pas ceux qui ont fait ces forfaitures su ko réglé wul moom ñun dinañ ko réglé suñu ko wax fii. j'assume entièrement parce que ni ma doon woowee droit à la résistance démb noonu laa ko woowee tey. te tere benn Sénégalais voteel ñu. parce xam nañ fu dëkk bi nekk. kon waa Rufisque maa ngi jéggalu ci ni ma waxee. waaye nit sa njaboot rek la am. xam nga nit nit nit sa njaboot rek am te njaboot ji toog nañu cinq dernières années gi souffrir nañ ñëw nag ba tey ñu yor ñu naan njaboot gi dañuy continuer di leen agressé man may le responsable moral de ce parti ma toog di ko seetaan loolu jeex na tey kon la ca des nag. defe naa candidat yi jël parole wax nañ ko ba mu leer nañ élection bi yéen ñëpp xam ngeen enjeu bi mooy en finir définitivement avec ces politiciens alimentaires nga xam ne sàcc alalu réew mi randal jaay des intérêts stratégiques du pays à des étrangers clientélisme loolu rek lañ fi nekkee gis ngeen Barthélémy Dias man maa ko joxoon gannaaw yàlla mairie Dakar yéen xam ngeen ko. Barthélémy Dias mënul gagné ko joxoon mairie Dakar waaye décevoir mu nekkee mairie Dakar bàyyi leen man bi ñu toogee dama ne président Diomaye yow xam nga ni li ñuy def ci mairie bourse bourse fictive yi ñuy def. naan lii ay étudiants la fekk duñu ay étudiants ñu damm ko seen poste surfacturation marché yi man lenn rek laa demandé nañu auditer les mairies nañ ko commencé mairie Ziguinchor bi nga xam ne man maa nekkoon maire bi bu boobaa kenn du ne dañoo def chasse à la nañ ko yulli ba mu génn dinañ ko yulli ba mu génn parce que xam nañ li fa xew et j'interpelle une fois de plus l'état du Sénégal un État ne doit pas être faible yàgg di interpeller monsieur le président de la république yu bëri yu bëree bëree bëri suñ ko defoon noonu tey du ñu nekk fii ñu nekk nii. un État ne doit pas être faible tey lii xew Sénégal la wax ci média yi kenn ñeme ko def ci Senghor kenn ñeme ko def ci Wade kenn ñeme ko def ci Diouf kenn ñeme def ci Macky Sall gis ngeen benn vidéo benn waay bu taxaw ne régime bi il doit empoisonner toute l'opposition xam naa leen loolu ñemewoon nañ def ci yeneen jamono c' est parce que dañ leen laissé ñu def loo wax ñu ne non on doit montrer qu'on est différent un pays nag on le gouverne dans la discipline dans le droit et dans la discipline.